ayca final ici à adressé Ngor ndeysaan le 13 août 2023 diggante te Toubacouta ak ki nga xam ne moom mooy Paul Mant di ñaari gune ñaari xale ndeysaan di bëgg waa Jilas sama dëkk ndeysaan di bëgg waa Diofior foofu sama dëkk encore waa Fimela dëkku Doni dëkku Galo ndeysaan di bëgg waa Luuse seen dëkk yi sama doom ndey di waa Sine Boyar waa Boyar ñoom Fapal Sita ndeysaan waa Soudiane ñoom Omar ndeysaan ñoom Saliou Tintin Gaynde ndeysaan jóge waa Ngari waa Farabugu waa bugu waa Ndimiting waaw waaw di bëgg waa ko bongo dëkk ñoom Lamine ak Zal Arfa Fay ziar naa la Ngañ Fay bëgg naa la nguy bërëm njeejeñ ziar naa la ndeysaan di bëgg waa palmaré docteur Biro Sarr docteur Julio jata ndeysaan Zamro Sam Pascal lay ni ki sama waaji mënuma laa ñàkk ziar ndeysaan di dem ba Zawal sama gaay wa Bandé bi Sam bëgg ngot si borom États-Unis dom ndey Zal ndjay dom njëy nga xam moy Serigne Lam di bëgg Omar Ngala mais ali Sow gayna ko dom ndey Omar Sow Abdou Aziz Poutine donc gra Idrissa ziar na la léegi waa ñoom foo pelelu maak waa ñoom 100 pour cent waa Fane Sokone Lamine TV ziar naa leen waa banlieue Bissab ndeysaan dellu si waat sama dëkk encore mu bëgg quartier yëpp ndeysaan waa Djilass 100 pour cent Djilass waaw waaw gën na Djilass rek ma nga am

képp kuy homme de tenue ziar naa la jën borom Fajar ziar naa la. sa Diop. ndey sañe tenke yaa juma jura cosaan xelam roga dem dig ndeysaan nga ngara debe Abdou Sagne debe Abdou Sagne mag Cheikh Sagne mag Madou Ndiaye mag Babou Sagne mag Oumi mag Maymouna ye mag Pape Sow maa ngara tokor Pape Diouf tenke yaa juma aca